alhamdulilahi rabil alamin ñu sant yàlla bu baax sant sëriñ Touba ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou yàlla yàggal ko di wéral ko ñuy ñaanal bokki taalibe yëpp ci bis bi nga xam ne moom lañ jagleeloon sëriñ Modou Fadiam ak sëriñ Modou ak sëriñ seex Niang mi nga moo njëkk doon xalifa sëti sëriñ Modou Fadiam ay tey nag ñu tàmbali woon bis bi démb ci ajjuma ji di ñaanal jur yi ak mag ñi ba tey jii ci six ñu waroon a amal cérémonie bi yàlla dogal ci bëccëg gi président def déclaration wax ne dañoo bëgg a dëkkal mbooleem daje yi nga xam ne lu ne mën na caa jóge te ku ne dégg na li xew ci réew mi muy jàngoro yi nga xam ne day wëndeelu yàlla nañ ci yàlla musal loolu mu tax ñu dakkal daje yu bari bi loolu jógee nag ba agsi fii nga xam ne fi lañ kon defee ci Touba Kër te benn baar rek moo fi nekk te réew mi ñenn nit ñoo fi ne yenn bokk ñoo fi ne ndax lu dal kenn dal na ñëpp te jàngoro ji doon lu sopp luy mën a wàlle te kilifa yi diine am ci ay responsabilité yu mag te nit ñi sax ñoo war a sàmm nit ñu war leen aar ci loolu nag bi président defee déclaration nag ci lañ ko famille bi yëg ñu toog suñu biir xalifa bi ko laaj ñëpp waxtaan ak ñoom ñu bokk déggoo ci ne daje bi ñu waroon a def nga xam ne dañu fi dajale mbooloo mi def cérémonie sëriñ ñu daal ne nañ ko fomm ndax liikat du dara lu dul dañ doon daje di ñaanal waajur yi la ci ëppoon solo def nañ ko mooy bañ xëyee ba léegi ñu ngi jàng alxuraan di jàng xasaayit di julli ci yonent bi sallallahu defe naa ne loolu ku ko xëy ba six heures loo ci sàkku ñaan ñaan war na àgg fu ne di ci ñaanal réew mi di ci ñaanal xalifa di ñaanal suñu waajur yi nga xam ne ñoo jiitu ci loolu la xalifa bi wax sëriñ Baara bi ñu ko ko waxee moo xam ne réew mi moom bokk na ñi nga xam ne ñoo war a aar nit ñi ci ñaanam ak digle lu baax mu jox ma ndigal ne kon nañ def li nga xam ne moo dëkk boog sarti réew mi ndax kat ak lu mu mën di doon ci réew mi lañ bokk te dañuy dëppoo ak sarti réew mi du politique nag du daara dañoo yéene nit ñi jàngoro ji bañ a àgg fenn fi te bokk na ci sart yi yi nga xamante ne mooy tax nit ñi aaru mooy ñu dégg ndigali doktoor yi te lii bokk na ci docteur yi wax na jataay yi nañ ko wàññi te kenn ku ne war nga koo def ngir sa bopp waaye war nga koo def njir sa njaboot te njaboot yëpp benn lañ ñoo bokk day ñoo bokk baay